ñu ngi fii di Médina Gana Gueye mooy def Cabra Caravane tey ci Médina ngeen àndal bés pro lépp ngeen bëgg a def rek mu ngi noonu Gana ngi noonu Gana ngi noonu ak doom ci kaw oto bi Gana ngi noonu ak doom ci kaw oto bi ndeysaan mu ngi noonu Gana Gueye noonu ak doom ci kaw oto bi nga moto yi ma nga moto yi Gana ngi noonu Gana ngi noonu doom ak doom ci kaw oto bi mu ngi noonu Gana Gueye ngi noonu ndeysaan macha allah li doon yaram mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu mu ngi noonu ci oto bi mu ngi ànd ak doom ci oto bi ndeysaan macha allah te le Sénégal gànnaaw yi ci oto ak doom ji ndeysaan macha lii mooy Sénégal lii mbégte la fii ci Médina macha allah mbégte la mbégte la mu ngi fi mu ngi naan ak doom ji mu ngi naan ak doom ji bëgg ci ak des produits rek dañu ko ak gànnaaw muy def caravane an tey macha allah <laughs> mu ngi noonu doomu ndey gànnaaw mu ngi noonu ndeysaan macha allah moo gànn ñu ngi leen di ak seen doom non sama gaan nga yow ñoo far macha allah seen Sénégal gànn nga bëgg nañ la noonu. mais kenn du sama copain macha allah kenn du moom sécurité 100 pour cent sécurité tout le temps macha allah bépp mag rek macha allah mu ngi fa moo ko moomee macha allah sama copain macha allah. waaw ñoo leen ñoo leen ñoo noonu ci kaw mu ngi noonu ak doom bi mu ngi noonu gànn nga def caravane mu ngi noonu ndeysaan mu ngi retaan dafa bëgg que le Sénégal voilà mu ngi noonu waa arrière leen mu ngi noonu ndeysaan Medina rek ndeysaan lii rëy na fii la cosaanoo fii la dafa lépp mu ñëw fi def caravane bi kon yaakaar naa du fàtte démb macha allah leen sox national bi gànn géey wala ci gànn géey eh. arrière leen arrière leen booy comme arrière leen booy ah, ba léegi rek mu ngi noonu. ndeysaan macha allah ñu ngi noonu. gànn mu ngi noonu. ànd ak sécurité bu doon sëkk. gaynde ànd ak sécurité bu doon sëkk. mbir naa la tey mbir naa la May leen may leen may leen may leen may leen gannaaw yi noonu mu ngi noonu madame a ngi nii ci oto bi madame Guèye ngi koy arrêté leen dañuy liggéey madame Guèye ngi noonu ci oto bi macha allah mu ngi noonu ak doom ji madame Guèye ngi noonu ci oto bi madame Guèye ngi noonu ak oto bi mu ngi noonu ndeysaan lii rafet na doom jaay noonu madame Guèye ngi noonu ci oto bi ah Fouti Gana ngi noonu Fouti Gana Guèye ngi noonu ndeysaan madame a ngi nii madame Guèye madame Guèye ngi noonu aujourd'hui c'est la fête pour Gana Guèye madame Aujourd'hui, c'est la fête de la Sénégal. Tu es content. Maintenant, tu parles avec Ganagay. Qu'est-ce que tu Sénégal maintenant Sénégal. Oui, j'ai pas entendu la Tu es content Oui, tu es content. tu es content avec Ganagay. Sénégal avec la caravane. a tout tu es content ndeysaan dégg nga li madame madame Gueye wax fee leen poosi ah! ah madame Gueye dégg nga li wax gaana wàcc na gaana wàcc ay interview ci madame Gueye gaana wàcc na xam naa lu ma def rek bi may dem gaana <laughs> wàcc na gaana wàcc na ñu daw xool ko ba xam lan la ñu gaana maa leen presse ñëw maa leen presse ñëw grand bàyyi leen maa leen presse ñu jiitu baal leen gaana wàcc na gaana wàcc na mu dem ba gaana gaana wàcc mu ngi noonu dem. waaye am nga sax eh, eh yow am nga xel yow am nga xel yow tànn waay waay ay booy dafa dox waay yow. Gana wàcc na Gana Gueye wàcc na mu ngi noonu ndeysaan. mu ngi noonu ndeysaan papa ji la papaam la. koñ bi ñu ngi sama ndegam ne mooy njëriñoo la fi la yaroo mu ngi noonu mu ngi noonu ndeysaan gànnaa ngi noonu ndeysaan macha allah gànnaa ngi noonu sama waa koñ bi oh lii rafet na lii rafet na gànnaa ngi noonu sama waa koñ bi te yaakaar naa Médina foo sànni match mu teg Médina foo sànni match mu teg tey lii ma maa ngi jël tuuti comme Thio Ba. muy noonu ndeysaan saa ko tey dama waa koñ bi ay papaam ay moromu papaam ak ñooñu.